asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di leen ziar di leen ñaanal jàmm ko sàkku ci yéen tey nag ñu ngi jeudi 30 septembre 2021 li may def mooy bàyyi leen ngeen dem seetaan wala déglu yëglekaay yi liñ ñu andil tey ñuy dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum jeudi 30 septembre 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay sunu làmb leen kay dooreeti yëglikaay ba tey xëtam mu njëkk ca xëy gën caa fes moom moo di Omar Kane ñu naan ko rëg-rëg yëglikaay ba nag daa jàpp ne mbër mii day boo bëggee dégg dëgg wàllum courage am na ko talent tamit lu mu ama am la puissance waxi noppi moo tax yëglekaay ba nag tudde ko la nga xam ne nii moom moo di daal dënnu caaroy ba moom sunu làmb moo xëy tey toppal ñu ko yëglekaay ba nag nee na ba muy dugg si ci làmb ji daal dugg ba mu dugg moom dugg bu sedd la maanaam entrée boo xam ne daal bu timit la waaye waaye boo bëggee dégg-dëgg rëg-rëg daa mujj tàng jër wala boog waxat ca biir làmba ja yëg yëglekaay bi naan boo xoolee combat ba nga xam ne ni ca lañ ko testé mu réussir ko muy bu njëkk boo bëggee dégg-dëgg yëglekaay bi naan digganteem la woon ak Balla Gaye senior ba nekk école de lutte Balla Gaye rëg-rëg daan ko ñu foog ne ca la yem mu teg ca bébé Saloum jël Jordan dal di ko cay teg waaye nag fi nit ña xamee kii nag daal mbër kaamil la te ku jara xel la mooy digganteem ak Elton ca stade Léopold Sédar Senghor kere bëre nañ ko mu metti lool yàgg lool waaye mu mujjee daan ko jël bu rëy rëy moom yëglikaay ba moo tax taal tey mu toppal ñu ko nga xam ne moom moo di Omar Kane rëg-rëg yëglikaay ba yemu ca xëy na tey toppal ñu ci gëstoob ka nga xam ne ni moom moo di daal Abdoulaye Dieye maanaam combat yi nga xam ne ñoom ñooy meilleur combat yi nga xam ne moom la ñu bëre mu dàq ci saison bii nga xam ne moom la ñu génne bokk na ci combat ya yëglikaay ba ne bu bëggee dégg dëgg daal yëglikaay ba ba mu ca teg ca kaw mu jiitu mooy caat bu booy bambara ak ka nga xam ne ni moom moo di mu jabu yof mooy combat ba ca dàq moo jiitu ñaareelu combat ba ca tege nag moom moo di mbay guy gi ma ngeen xam école de lutte ba da jon mam balla yëglikaay bi ne na ñoom ñaar itam seen combat de bu neexoon la moo jël ñaareelu place ba ñetteeli combat ba moo moo doxoon ci diggante Coly Faye numéro 2 bu Caaroy ak ak ba nga xam ne mu nga nekk ci écurie Fass ak Ndakaaru yëglikaay bi ne na boobu komba moom moo jël ñetteeli place ba quatrième combat Aline Seydele Issa Pouye cinquième komba bulldozer ak ka nga xam ne moom moo di gin bu yof moo tax yëglikaay bi jàpp na ne saison bi nu génn daal boo bëggee dégg dëgg juróomi combat yi moom mooy yi nga xam ne moo ci dàq bëree pire fa am te itam ay jël yu rëy moo ca mujj am leneen loo xam ne ni am na yëglikaay bi xëy wax nu ko muy école de lutte Doudou Baka Sarr ba nekk fa nga xam ne moo di ñaari tali benn tali Grand Dakar yëglikaay bi na daal boo bëggee dégg-dégg sept victoire la ñu ren ak six défaites yëglikaay ba nag xëy na tey toppal ñu ko di dinu xam ne daal école ba moom loo ci mën a dégg daal jàmbaar jàmbaarul nañu fexe fexe ba seen ay ndam ëpp seen ay défaite waaye ka nga xam ne nag mooy seen président daal di seexu jaxate la mu xëy daal di ko xamle ne na seen objectif daal wala la nu bëgg daal ci seen écrit boobu mooy la nga xam ne moo di sunu làmb door ba daal ñu décroché ko maanaam daal di koy jëli loolu mooy la nga xam ne ni moom la ñu bëgg bu nu demee ca tuusa nag am na loo xam ne yëglikaay bi mu nga xëy tey samp ko fa wala moom mu koy laaj wala mu bëgg kan moo koy tëgg muy combat boo xam ne war war naa mën a dox ci diggante Mbaye Diouf ma ngeen xam mu bawal ak Bathie Seras mu Pikine bi moo xëy tey ñëw samp la di ko laaj bu ñu fa jógee record la niy dem kan fay fekk mooy Ibra Mbaye ma nga xam ne tamit coach su la woon ci te léegi mu nekk ab manager Ibra mbay nag daa xëy daal di wax la ko naqari wala boog lanu ko def te mu jàpp ne rafet defu ko tey suba waxi noppi te ña ko ko def itam bañ ko ko defee ba pare daal daamel mel ni jëlewuñ ca ndam mooy lan ne équipe de Dakar ba nga xam ne moom la yoroon ci wàllum tournoi drapeau la nga xam ne nii mooy chef de l'état bi jëloon ci drapeau chef de l'État ak agression de Dakar nee na at mi ca topp maanaam at mi nu génne Ibrahima Mbaye nee na lañu lañ ma def te seetu ñu ca dara maanaam daal dañ ma dàq carrément waaye itam daal bañ ko defee fañ ca mujje neexu leen dara dara am na loo xam ne nii moom keneen koo xam ne nii moom maanaam yëglikaay ba xëy na tey toppal ñu ko moom record muy Ama Baldé mi nga xam ne daal boo bëggee dégg-dëgg yëglikaay ba nee na maanaam fa nga xam ne Balla Gaye 2 jaar na fa ak Modou Lo B52 yi de jaar fa ak Modou bi boobu laaj la tey samp moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal ndax ama dana man loolu waaye ama daal bu bëggee dégg dëgg daal moom diggante ba Modou daal daa mel ni moom maanaam dutewut sax ci victoire am moom la mu gëm daal mooy day daan ka nga xam ne daal moom moo di Modou Lo loolu mooy gëm-gëmu Ama Baldé loolu mu ngi ci yëglikaay bi nga xam ne moo di record keneen koo xam ne ni wala lamb jooju ñi nga xam ne ca la nay wax ka nga xam ne moo ko jiite di président ba di Bira Sène moom maanaam teg na fukki mbir ak ñett la ñu fas yéene muy ay mesures yoo xam ne nationale moom lañ fa yéene nag ànd ubbee ko la nga xam ne moom moo di arène nationale ba loolu tey moo fi dikkoon ci yëglekaay yi. jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglekaay yi tey li ñu xëy indil sunu lamb ak record ci wàllum xibaar yi nga xam ne moom moo tukkee ci lamb ji waaye li may def mooy rek jaajëfal leen yéen ñi nga xam ne dangeen ngeen topp di ñu seetaan di ñu bàyyi xel di aimé sunu ay vidéo di ñu commenté ah ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def si lamb di wax naa encore une fois rek. saa sunu xëy rek yeneen fexe dégtal leen li nga xam ne moom moo xew ci làmb ji moo xam ci yëglikaay yi la moo xam ci ay interview la ay reportage la wala ay plateau parce tamit loolu defe naa ne mooy li ngeen bëgg te itam yéen li ngeen bëgg rek ci la ñu fas yéene di taxaw incha allahu rabbi maa ngi ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkku si ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp tey nag fi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb comme ni ngeen ko xamee rek xëtam mu njëkk tey euh, rëg-rëg ngeen gis noonu moo ca gën a xëy gën fës maanaam moo nekk ca ala in ba tey moom Omar Kane rëg-rëg yëglikaay bi xëy tey wax ci moom dugg-dugg bi ak fi mu jaar ba tey mu yegg si ci niveau bi nga xam ne fi la yegg si rawatina ci làmbi dóor yëglikaay bi nag hmm? la saga de rëg-rëg la foudre de caaro yi waaw maanaam mbër la bi nga xam ne daal ah ci côté tamit courage mbër mu am courage la yëg li bay wax talent tamit yëg li wax ba tey ne mbër bu ko am la waaye tamit mbër bi nga xam ne bu am puissance la yooyu yëpp dajale na ko te loolu defe naa ne soxla nañ ko ci un athlète pour nga mën a réussir sa ay bés tey parce que euh, tamit euh, loolu mooy li ne li am parce que bi mu duggee si làmb yàggu temps rek rek wax dëgg yàlla yëglikaay bi bu gisee tey loolu ba yàngat ko ba wax ko ça veut que loolu mooy li ne parce que daanagul ci lit affaire frappe te itam bi mu ci duggee léegi yàggul réussir na ay bés yoo xam ne ni ndax ndax defe naa daan naa Elton kese ci làmb ñu ñu dit waaye nga teg si gri ah loolu du ñëpp a ko mën a def ci làmb nga nekk seen génération ngeen bokk génération maase nga bëri ñoom daan leen ah tey ñun wat déet ne waay nga war am ak combat guy gi kon li yëgle kay wax mooy li am talent baa ngi fi puissance baa ngi fi waaye tamit courage baa ngi fi parce que yooyu yëpp mooy daje yooyu bu ngay dajale ak liggéey pour mën a nekk. un vrai vrai vrai champion te Reug wax dëgg yàlla vrai champion la par rapport ak fi mu ko gisagu mu aw fi ci làmb waaye tamit yëglikaay bi euh, toppaat na ay combat yoo xam ne tax na maanaam nit ñi gën ko bàyyi xel bokk na ci test bi nga xam ne réussir na ko moroom combat ak Balla Gaye Junior kere ci stadium Iba Mar Diop ci stadium Iba maa ngi jégalu te boobu wax dëgg yàlla Baye Gaye Balla Gaye Junior tamit ah ko joxee di nga xam ne am xam am nga adversaire waaye kër Reug Reug gis nga fa mu mujj ak moom jël ba mu ko daan ñu déet na waaye mu teg ci bébé Saloum ñoom Jordan ça veut dire que loolu moo lay war ne kon lépp looy def rek fu la da ciy baax moom Reug Reug jaar-jaar boobu la jot a am tey ba taxawe fi mu taxawee ba war a bëri tey ak guy gi muy lu nga xam ne liggéey moo ko ko may ak mérite kon nag li ñuy def mooy diggante ma guy gi le 2 janvier yàlla nañ ko fekke tal ko ñu xool ndax lool mu aw wala yoon yoon woo mu tegee da koy continuer wala déet mais loolu li ci kanam la olof di wax na rawul ay bët yàlla nañ ko fekkete tal ko bu nu continuer ba tey ngeen gis yëglikaay bi tamit ñëw na moom sunu làmb di nu xamal ah cinq combats yi nga xam ne ñoom ñoo ñooy le les meilleurs ren ci saison bi nga xam ne moom lañ génne juróomi komba yu mu tànn wax ñu ko te defe naa itam amateurs yi nangu nañ ko mooy caat booy bambara mut ja ah ak ban komba euh, mbay guy gi mambala ak ban combat Coly Faye numéro euh, euh, général bu fas Aline Seyde Isa Pouy Bulldozer ak Guine bu Yoff c'est des meilleurs combats ren waaw loolu la yëglikaay bi gis tey waaw ba wax ñu ko loolu nag ça veut dire li ko wane mooy ah euh, xam naa daal ay combat yu neex la man nag wax dëgg yàlla defe naa balaa suñu làmb sax di wax lii man boog tànn na combat bu ma jàppoon ne moo tax ci saison bi te boobu defe naa juumuma ci ndax suñu làmb fekk si ma ci mu caat bu booy ba war ak Modou Dia ndax combat boobu kera xeex dafa am mais bëri mbappat bu méttee méttee méttee dafa am bëri bu neex bu rëy rëy jël bu rëy am ca loolu nag mooy li nga xam ne nii moom la yëglikaay bi tànn tey indi ko ça veut kon bëri ci yenn combat yi souvent di nga tëgg combat yoo xam ne liy waral bëre ba neex nag sa topp tolloo ba dasey am waaw xëy na am na combat boo xam ne sax bu mel ni Issa euh, Issa Pouye ak Alioune Seye boobu dóor mu daanu la mujjee waaye lépp ci biir làmb la bokk waaw waaye xam naa caat bu booy bambara daal ak ka nga xam ne moom mooy Modou jamoom c'est le meilleur combat waaw man ci sama gis-gis ren waaw te loolu sunu làmb ñëw tey dëggalaat école de Doudou Bakassar tamit seen taxawaay ci làmb yëglikaay bi ne na ñu ngay gën a jafandu ñoom Doudou Bakassar gis ngeen leen loonu ak seen président Seexu Jaxate ak mbër yi ñoom dijje ak yankaaw ak mbër yi fa nekk ay ñoom booy taxawaay bi donte eh, kiiwut waaye jafandu nañu ba am 7 victoire 6 défaite ça veut dire que kon ñoom ñu ngi ci rang bi rek di di di ko ñàkkante seen président nag di Seexu Jaxate père Jaxate nee na ñoom li ñu bëgg daal mooy fexe ñàkkante ba jëli sunu làmb door bi loolu nag gën a liggéey rek ren boo xoolee dañoo am ay combat yu ñu perte yoo xam ne nii xaw na metti rawatina lu mel ni Boy Dakar dafa perte combat mag gàkku de yaa ngi dégg waaye tamit ki nga xam ne mooy Yankaw ki Yankaw junior tournoi bi daal ñu ngi initié woon te mu bokkoon ci dafa perte ñaari combat ndax premier combat Thiat Daouda Fall daka daan deuxième combat bi mu am ndam ci géew bi mais recours am ki nga xam ne moom mooy kaaw góor dañu jox ko ndam li loolu nag kon liggéeyaati donc moo fa des loolu yëg li kaay ba xëy tey dinu ko wax record la ñuy dem fekki fekk nga xam ne moom moo di Ibra Mbaye journal record Ibra Mbaye nag ancien entraîneur la écurie waaye ba tey manager la tamit bo biir écurie Fass Ndakaaru ba tey mu nga fa yaa ngi dégg moom nag moom moomu xëy seq waxtaan wu yaatu ak ka xam ne moom mooy Assane Waalo Gueye moom ah, mi nga xam moom mooy Ibra Mbaye moom la la mu xamle daal nee na équipe de Dakar daal dañ ko faa dàqe waaw dañ ko fa daal dàqe équipe région de Dakar waaw dañ ko faa dàqe waaw on m'a chassé de l'équipe régionale de Dakar waaw loolu nag defe naa ne xaw ah, ñu jiite gi ba wala boog ñi xam ne ñoom ñoo yore mbir ma ñoom ñoo ko def xëy na xanaa la taxoon ñu def ko xëy na ñoom xam nañ ko waaye xam naa daal euh, lépp lu mu mën a doon lu ne ma parce que région de Dakar su ma jumulee ci sama jàpp li ma jàpp bu ma sama xel naxulee euh, drapeau chef de l'état suñu ko gagné ñu ngi ko gagné woon bi Ibrahima mbay yore équipe bi donte dem na ay yoon di ñàkk di dem di ñàkk di dem di ñàkk ba benn moment mu dem gagné ba mu gagné nag at bi ci toppaat defe naa drapeau bi amul parce que li ko waraloon mooy coronavirus bi ñu ñëwaat at bi ci toppaat drapeau bi am muy ren ñu far ko dàq yóbbu woon ñoom euh, ma euh, nu mu tuddati euh, maam lees ak ñooñu waaye nag bon mu ngi noonu daal xëy na waar waaye daal loo ci mën a dégg daal moom xëy na wax na moom ki nga xam ne moom mooy Ibrahima Mbaye Ama Baldé fa Moodu jaar fa fa cinquante 52 jaar bala gay 2 jaar fa ak Moodu Ama Aska Ama nag la mu gëm mooy daan loolu gis ngeen ko yëglikaay bi ñëw na tey ci indil ñu ko ba fàttali ñu sax seen mbappat ba nga xam ne jaaroon nañ ci ay jamono te muuru daanoon ko waaye Ama loolu lépp daa mel ni moom koo tege ne li mu gis daal mooy bëri muuru daan ko rek moom moo ne ci xel mi fi mu nekk nii. et puis tamit loolu moo jaar parce que mbër bu ne boo jëmee ci combat la nga war a jàpp mooy damay daan suma adversaire ba ba ngay gis lu contraire ak loolu parce que mbër ñaari mbër saa bu ñuy dem ci combat la ñuy doxee ñoom ñaari ñëpp parce que li suñu papa Maxime Bragane di wax ne ñaari damay dugg mais benn mooy génn loolu moo ko indi yaa ngi dégg encore une fois nañu yónni yàgg rek ba xam fan la am ak Modou di mujjee hmm? yàlla nañ ko fekkee te tal ko yaa ngi dégg bu nu continuer Bira Sène tamit ah brandi 13 mesures ah, pour ordonner l'arène nationale Bira Sène brandi 13 mesures ah waaw kon xam naa joxe ga lay doon wala nañ cay dugg wala yu mel noonu fukki mesure ak ñett daal jël nañ ko fa waaw xam ma nag mesure ya eh, yan façon mesure la war a doon ak yooyu waaye loo ci mën a dégg daal ñoom daa mel ni am na lu nga xam ne nañ ko fa teg ci ay conditions pour ku bëgg dugg ci arène ba wala ku fa bëgg a def nangam ak xëy na bu amee li ko war a mën a indi rek mooy coronavirus bi nga xam ne boobu ba tey mu ngi fi loolu tey moom moo fi di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp wax que ni Sénégal fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa ko defal ko bépp doomu aadama ah di bëgg tamit vraiment si ñëpp ñi nga xam ne comme ni ma ko ubbee woon sànq rek ñu ngi ñuy suivre à travers Equivox TV rawatina nag ah, ah fan si club Equivox ak Babacar du ma leen fàtte ñoom Adama Ndiaye ñoom Arouna kamara ñoom Awa Diop yéen ñëpp maa leen di bëggee ah. ah euh, euh, waaw su ma limee dinaa juum quoi parce que booy lim suma da ngay fàtte waaye 100 pour cent Babacar tamit du ma leen fàtte ñoom Cédric Marcelin duur ñoom Bakary Ba ñoom Gaëb ah. ñoom waaw gaa yëpp daal ñoom Pape Ndiaye tout jiga du ma fàtte kenn Baye Zal Paris képp ku ñuy topp rek wala ngay bégg bégg li ñuy def rek ñu ngi lay ñaanal jàmm waaye tamit di ñaanal jàpp jàmm bépp doomu aadama parce tamit àddina moom loolu rek moo fi ne maanaam nga nekk ci benn mbir ay ne di la jàppale di la pousser loolu fierté la te mbégte lay doon kon yàlla na jàmm yàgg xule moo newoon si caméra bi ak montage bi di leen jox suba dig daje suba incha allah rabbi ci beneen JDA ak Equivox TV ak Babacar. Ah ouais Attention, Jackson Double.